baax a baax a baax bu ko defee ñu daal di jàll ci li fi indi te fi di sargal bi Serigne Bara Samb waaw Serigne Bara Samb bu koo xam ne ku saf rëpp la ci ñun alaaji bërëm Serigne Bara Samb mu nekk nit koo xam ni Serigne Neex nii moo tax ñu xam ko Serigne Neex mii tamit nekk ku ñàkk ci ñaan ku yaatu ku tamit mu ni am naa waaju baax ndeysaan ku tudd Serigne Bara Samb taalibe Serigne Fallou mu ni yaakaaru keneen ku du Serigne Fallou ko sëñ Baara dañ lay bëgg a décorer fii ndax ñun ku ñu def li ñu sawla ba nga toll ñoo ay ayca lolu dëgg la kon Serigne Baara bu Serigne Baara borom Maxis mom lañu wara daal di décorer nak waaw waaye dafa melni ni damaa daanu leer de yaa ya suñ ne rakkaaju na waaye li ko maam cerno di waxe dafa melni yaangi ru ngi de ma melni ku tok fi da nga melni ku tok ay da melni da nga tak de Serigne Baara aca Serigne Baara

ñu ànd ak moom waaye kii ku baax la ànd nañoo moom jéemal suñu appellation suñu jaaree ñu ne Cheikhouna Seye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax rakk mi dul say taw féex waaw ay ca ndànk ndànk ay ca kon ñu daal di koy teppi ñu daal di def ndànk oh oh oh ça c'est beau c'est vraiment beau ndeysaan kii Serigne Fall ñu oh. bind ci Serigne Bara Serigne Bara Samb taalibe Serigne Fallou. taalibe Serigne Fallou lii ñun ñoo la ko jox. ay ca ndeysaan lii am na solo. waaw gars yi tàcc nañu ko lii tàccu ñu ko midi. lii bu baax a baax. fii bu sañoon chaque jour la ñuy ñëw këram. ndeysaan waaw buñ amul loo pli dinañ la ko defal. Oh. parce bu baax nga ci ñun. ndeysaan rakam ji tamit ci dara. Adama ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen Serigne Bara jërëjëf jërëjëf. ca jàppale leen.